waaw salaamaaleykum waa Khass TV maa leen fay bu baax a baax a baax di gërëm waa Kër Massar di leen nuyu tamit Kër Massar Malika ni koy waxee rek foofu la ñuy yeewoo Kër Massar Malika di bëggee waa Kër Massar ñëpp ñëpp ñëpp ah di bëggee tamit di nuyu waa salle bi les jumeaux di nuyu sama coach di nuyu jumeaux bu baax a baax ñaari seexu yàlla ak seen grand bu baax waa gars yi ma àndal fii maa ngi leen di bëggee ah ak galaayoo maa ngi lay ziar lu bëree bëri di xalaat tey mais yàlla ñu ngi si xalaat ñu ngi siy liggéey bu baax a baax a baax xalaat naa am ñaar ba ñett parce que ça dépend nag si mbër yi ñu bëgg a bëreet ak si promoteur bi waaw parce que gars ñu ngi wax suñuy combat mais tamit nag nañ teel a bëree rek buñ teel a bëree rek mën am lu ñu bëgg incha allah. dañoo dégg ni ma ko waxee rek tey jii bu laal mi ngi fi yaa ngi dégg bu laal Coly Faye numéro 2 Mama waaw ñooñu ñëpp dañoo war a ñëw ñu bëre. non ma Mama Lamine benn la fi dugg ñu ko noonu noonu. mais dafa gaaw combat parce que bu làmb la làmb moo demee noonu say tey boo xoolee tey euh, Mama Lamine ni nga xam ne daa waaxu jogal parce que ko fu mu xalaatee waaw noonu la demee mais jogal te ji mooy yaa xam ne combat am rek bu jëloon temps Mama Lamine di ko waaxu waaw noonu la demee. kon waa Kër la demee incha allah te dañ koy faj sax bu neexee yàlla. waaw suñu problème du dara mooy heure bu ñu tey esaat day métti parce que du ñu mayante sorewuñu ñun Kër Masaar lañ dëkkee ñun ñu dëkkee jàmm gën ñun mbëbës gi fii la ñuy saa bu ñu xëyee ñu ngi si mbëbës bi sorewuñu ko ku si am sa mbalit fa nga koy tuuri waaw noonu la demee. ñun bu ñu indi seen mbalit ñun ñu seeg ko ba mu baax defar ko yóbbalaataale leen ko. mais dafa mel waaw parce que noonu la demee làmb la parce que boo xoolee jàmm gan bi ñu génnee nag wax fa dëggal day am lu topp seen ginnaaw Kër Massar tamit Kër Massar Malika ñu nit saa bu ñu génnee day am lu ñu si ginnaaw moo tax saa bu ñu dajee làmb du ñu mën a mente waaw parce que làmb jooju du mën a yomb parce que loo may lu toll ni tarafatal ani sa euh, lu toll ni tarafatal ani sa morom da koy jël waaw noonu la demee. mais euh, ma adversaire Kër non non adversaire Kër Massar bëri na Pikine na ngi fi Mal euh, Pikine na ngi fi Géejawaay Géeja Géejawaay yëmbal Dakar ba si écurie Fass ah Fass Dakar waaw noonu la demee non parce que parcelle non maanaam tey boo waxee man la tey Kër Massar bëri na écurie ñun wa maanaam boo xoolee ñun ñun ñen lañ dul bëri suñu biir waaw mais tamit Kër Massar bu génnee Kër Massar tey Kër Massar Malika lu ko romb rek ay adversaire la ñu. est loolu du ñu xaalis. non waaw bu fa dëgg yàlla tamit say adversaire du bëri waaw bu ñu waxantee dëgg rek si adversaire du bëri parce que tey te kenn ku ne si adversaire mi ngi fa mais tamit dañoo xoolee dañu mais lu olof di wax rek voilà noonu la mhm. xaalis seen loo xamante ne ni après combat parce que gis nañ fi ci ñu mën Moussa Sow gis nañ fi Modou Lo commencé te tey ñoom ñaar ñooy tey boo xoolee loolu am na boo xoolee saa kees booy sëy ñu daanaka ñoo bokk benn benn koñ mi dëkk waaw te te ñoom ñaar laale nañu mais après boo làmb ji jeexee après teru ngeen neex gaañoo mais loolu tamit day am mais tamit nag xam nga tey nu ko mbëri di dundee mais supporters yi ñoo ko dul dundee noonu moo tax tey jii yow mën naa ñëw bëreeg yow ñu bokk benn société wala bokk nga xam ne sama fi nga dëkk ak fi mu dëkk fi nga dërëm la ñuy na ñëw bëri mais bu ñu paree après supporters voilà moo tax. boo xoolee tamit lool su surtout lu si ëpp la. parce que boo xoolee comme nawetaan noonu la demee parce que tey say supporters tey damay dëkk Kër Massar kii dëkk Malika bu ñu paree yow bu ñu jógee tey bu ñu bëree Dakar ñu war a jaar yoon Kër Massar bi ñibbisi day metti galaay day metti. ndax xam nga ni ñu dëkkoon Dakar ñoo dëkk Kër Massar ñu dëkkoon Pikine ñoo dëkk Kër Massar ñu dëkkoon jàmm gën ñoo dëkk kon sang am na supporter bu papaam mm-hmm. bu dëkk parcelle. que bu jaxasoo paree dem leen tuddee bi ci kaw dina yóbbu. non waaw loolu moom lu leer la parce que boo xoolee daanaka fépp fu waay duggoon rek daanaka yaa ngi Kër Massar léegi instant ñëpp a ngi Kër Massar mais tamit moo ni nga wax rek dem leen tuddee bi bu yàggee na boo demee ba xaritoog ñëpp boobu sa moo ni nga wax rek sa adversaire dootul bëreetee. galaay. dernière question lu ñu war yokk ci làmb ak lu ñu war a bàyyi ci làmb waaw dañoo ko wax fu dëgg yàlla nag li ñu war a solo li ñu war a man tey li may kaas première mooy CNG. arbitre mooy tey boo xoolee sama premier sama combat mag Jackson dëgg la nag ñaax naa lam moom ñaaxal mais stade bi daanaka mën naa ne ay seretu comme seretu suuf lañ euh, dangay ngay ut sa seret suuf rek xëpp maanaam tey boo xëppoo boo xëppoo say saafara tey stade bi day wow pour nga glisser day yomb tey boo xoolee sama combat li ma ñaaxal loolu la parce que tamit. damaa dama ko plaqué daw ànd ak moom li tax mu fàqen ma ba sama tànk bi laa sam pour am appui mais dafa glissé mais esaat bi tamit bu fa dëgg war nañu ko sëq wala boog bu ñu ko mënul sëq ñu yóbbu ñu arène nationale. mais a xam nga non non parce que tey promoteur bi sant dépense promoteur bi parce que promoteur bi moo lay tëgal ñoon ne la carrément arène nationale laa lay yóbbu wala boog ne la carrément fii laa lay yóbbu Ibamar. Ibamar waaw noonu la demee nag te CNG tamit leen wax benn affaire dagg bi dafa metti ñun ay yu ndaw la ñu si ñu jàppale nañ ñu wàññil nañ ñu dëmbale te yàlla tax de waaw. non xam nga fekkee tey sëriñ si tey yow yow di nga yow di nga respecté yow yu la sëriñ si wax. yaa ngi dégg waaw pourtant yaay fay sëriñ mais tamit làmb dala koy jaral parce que làmb tey am na fi muy toll nekkutul doole bu doon doole dong kon bëru waaye yow galaay waaw waaw noonu la demee nag maa ngi tàggoo waa Xassida bi di gërëm waa Kër Massar yëpp yëpp yëpp mooy nu mu ko taayoo koy wax rek su chaque jour mu ko la di wax mooy di gërëm tamit waa salle bu baax baax wax fa dëgg yàlla tamit saa bu ñu fi ñëwee kontaan nañu quoi wax fa dëgg yàlla kontaan nañ gis nañ si njëriñ parce que tamit dama koy yàgg a wax parce que man tey salle bu amee moniteur normal rek gërëm tamit sama benn karan kara doole di waa kër mbëru yëpp ay ñoom Jokal ñoom Kàngam xam nga lu ma la wax maanaam di bëggee ñëpp ay ñoom Baba Ama ñëpp di bëgg di bëggee tamit Pa Demba di ko bëggee bu baax a baax xam nga rek c'est wax mu ne ko bu baax quoi moo tax mooy war a tout le temps ñuy càng waaw waaw bëggee naa